Gari, Dua dua Ah, là, Tourne, tourne, tourne. aizo vuba umugende arakona ngero rwose Oyafuka, oyafuka. Bye. secondes nga xam ne dégg nga kon bii 10 secondes nga xam ne. 10 secondes d'accord ayca ayca gën a gaaw gën a gaaw voilà. voilà c'est ça. non c'est pas.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn jërë ngeen jëf salaamaaleykum am internet jël bi nuyoowaat nañ leen siyaar leen bu baax a baax a baax a baax nuyu njabootu làmb yëpp ju nuyoo bi nag teg ko ci loxo président Bira Sène tey nag ñu ngi fii parcelle terrain 22 ñu fekk si fii écurie Birame ñaay ñu koy wax sàkku xam-xam dañ leen di jox nuyoo suñu nuyoo pare ñu tàmbali li nga xamante ne mooy émission bi mais tey bitu émission bi mooy préparation combat ki nga xamante ne mooy Anaconda ñu jëm nag ci le 6 muy combat bu doy waar ci digganteem ak caatu ngéwal ndax boo xoolee àdduna ñëpp moom lañ koy waxtaanee démb nag def face to bu doy boo xoolee Anaconda xam ne mu ngi ci état xam caat xam ne mu ngi ci état waaye le six ndam li fan lay des loolu dinañ ko waxtaanee. aca Brise nuyu naa la. maa lay fay soxna si. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba di nuyu waa Parcelles yëpp di nuyu rawatina muy borom équipe muy Birame Ndiaye di nuyu gaa yëpp waaw di def di ñëw daal di préparer suñu rax rek muy Anaconda di ànd moom si bisu le six bi tamit di wax ne booy bi yoru la. boy bu am taalibe la so gisé ñu bàyyi ni suñu soxla defal ñu lén lén rek lañu won talibé lañu won ak yar man sama rax la parce que ñëpp nee Brise yak boy bi yéna fort té tamit man nag lu champion am daanal la té tamit duko ñaanal yalla yalla suñu borom mi nga xam moy maye ndam le 6 yalla ko suñu borom sutural parce que man man dama dama naan yàlla nga suñu borom sutural rek parce que su lay bëré passer mu naa passer parcelle daj gisuma boy bo fi daax bëré lo mo sama sama baat ci kaw ben nangu entraînement yaruna na amul benn problème waxam bëriwul te loolu mooy loolooy mbeur mbër waroon nekk suñ la dégg ay micro nga ne pare kii wax wax ju néew ndaanaan la champion la ndaanaanam ñëpp ko nangu barke Serigne Touba Mbacke di nag du waajal di wax le six waa Parcelles gépp gépp gépp nañ génn. te xam le six. mais Brise mi ngi bële xale bu doy waar. Hmm. parce que keroog seeti naa ko. mu ne làmb boolewuñ leen ñoom ñaar ki mu mujjee daan sax làmb boolewu leen kon moom moo ko gën a nekk champion lan ngay wax ci loolu. Ah, te moom làmb moom neex na ku nekk di wax rek. wante yàlla xam na ne su demee ba toog. dina xam ne am na combat waxuma ko nag ngir nguur lu mu toog waxuma ko ngir dara ba mu jëlee combat bi bu ñëwee di wax dama ko ne eh carrément ma ne ko mënoo ko ay morom ngeen maanaam man xam naa ne man su yàlla defee jàmm bañ jàppante rek man su ma neexee mën naa ñibbi waxuma ko nag ngir mu toog waxuma ko pour lu ko neex wala dara su entraînement wala carrément ko naan carrément mooy loolu dama ko ne soo soo soo soo soo juumee tuuti wala nga négliger tuuti ñun ñu longu la anda bu lu toll ni al tafal sa garde nga dox si kawam jàpp bis boo ko ngay bëri ak ñun fu kenn nekkul fu benn booy nekkul nga moom noonu nga xool leen la si su parce que caatu ngéwal nee keroog dina ko wan ne moo ko dàq xeex moo ko dàq bëri ñoo ñëpp ñoo leen meññ ñoo ñëpp ñoo leen meññ coolaa fi nekk nii rek démb nag maa ngi ko dégg nekk di wax cool yi ñëpp ñoo leen meññ barke Serigne Touba Mbacke ba ñuy laa di contact loolu noonu am loo xam nag après après la mun ba après làmb ñu nga doog a ñëw wax baaxul nag quoi à suivre lay doon tey ñu ñëw écurie Birame Ndiaye ñu gis tey ni ngeen taxawoo équipe bi ñëpp nekk benn booloo ngeen ñëw jàppale seen rek lan mooy booloo bi soxna si benn dama ne jamono ji su écurie jël waatoon si koñ yi parcelle booy bëri duñu bëri tey fii nii ngay gis fii nii gars di contacté billaay wallaay taalaay ku wóolu sa bopp doo doo fi kii parce que ñëpp sera ñëpp ay waa koñam la su wóolu woon boppam benn du fi contagé fii nii barke alxuraani kër am na ñuy bëre gëna combat suñu fi ñu won nañ tak leen sër seen contact fii bilaay duñu contact parce que mënuñu ko ban mënuñu ko benn bi japp jàppuñu amuñu condition bi da mhm. so taxé xalé bu ndaw toroxal la kon bok li ni ku wóol su bop deug mo koy def fi ni fi ni amul luñu wër xolal xolal ma fi jëlal ma ko amul lu wër mais wóolu ngeen seen mbeur de non du question wóolu sa mbeur su ma ko ne kay contact fii mu na muy lapi lapi wala dara ma xamne ki kii kon boobu mooy loolu ànd ko ko ne kay contact mu tak day tak day tak seul tay lu tay lu ah, tay lu fi sib di ñëw moo tax seul billahi wallahi taala dama lay dama ñu tolni parcel su igri de dos école barki Serigne Touba mbake seigne kor jot sa boy baye sen boy baye li ñuy def ñu recensé entraînement boy boy mbeuri mbëri ñi baye ñuy bàyyi parce que mënuñu barki alcorane karim xaa la mu neex mënuñu ñu mënut kon da lamb yenn ko mom yenn wa parcel na ko question ñu la ko mën an li ni ku wul su bop do ko def yomb na def am na si mbër yoo xam ne suñuy laqatu jamono si yibëre suñu contact jamono dañuy laqatu ante damal damal damal parcelle fii nga dem parcelle fii lay contacté si naan du fay fay bi ñëpp di romb loolu da ngay wóol sa bopp maa ne doo bàyyi ba timis bi passé mu ne ñëpp tëddi da ngay contact da ngay contact sama koñ di la gis parce que tey ñii dañuy sawar a dem esat dañuy sawar dañuy sawar a dem dañuy sawar a jënd ticket dañuy xam ne kii kat kii ñu ko sékkal ndaanal la jar mi la mun na bëre man xam la moo bon nga am combat sama koñ ñëw di la seetaan si nga daw tuuti nit ñi ñëw di la sànq nga takk sër bañ a contact. lan ngay wax xale yi nga xamante ne ñëwuñu entraînement. non na ñëpp ñëw igri sax xaw ma suñu igri la parce que ma di wax aw ma jot keneen ak keneen saar mi amul jot keneen ak keneen kii amul jot wante man booy moo ma ko jaral ay booy ñoo ma ko jaral parce que ay ndaanaan lañu te champion lañu man su ma ne nii aw ma jot dem toog wala wala su ma ne mënu maa contacté fii tamit mooy loolu su ma contactul fii damay dem damay dem frais de contact su boobaa loolu tamit loolu lu gars naan euh, kii la am na lu ko tubaab bi balaa caamu ñu jàppale booy parce que booy yi samay booy nu mu dee dee dee dee benn am naa si bis ñu sonn si wala tamit xeex nañ ngir brise mel wala xeex nañ ngir su ma nee kaa leen contact damay takk sama sët ñëw jaayante ak ñoom te xam ne champion la ndaanaan la benn laay wax su ma ko newoon nii laa su ma ko newoon kaay contact fii muy am lu muy laam laam wala naan ma contact barke Serigne Touba Mbacke du ma dem làmb ji en suñu ne contact moo fi njëkk ñëw takk sër contact lii nag ku wóolu sa boobu doo ko def léegi du moom de pour booy yëpp la pour booy mbër yëpp la su ne daa nga soog a nga non daa fàngaal esaat moo gën esaat moo gën a moo gën a fàngaal te si yëpp dañuy ñëw te da ngay tàq sa ngeen bu juutu ñëpp ñëw la saan sa koñ nag sa koñ sa koñ la tey lu mu dee dee dee benn supporter yi yokku na mm-hmm. ku xamoon Anaconda suñu suñu seetaan Anaconda dina eh, booy bi champion la ma dem esaat su xam woon ku xam woon sax na waxuñu nopp loolu la ngay kii sa waa ko ñëw dina jàppale. est-ce que waaw ay ñuy te loolu ay entraînement entraînement doo ne man doo ne man non ay fii dafa dafa ay kii ak ñoom seen. ay ñoom Modou Lo ñoom Fapal dañuy def loolu lay entraînement. maanaam daal daa wóolu loolu loolu wóolu boobu doo ko def. Brice tegal foofu sa baaraam ma ñëw ñu jëm ci Sonatel champion bu mag. yaay booy. waaw moom noonu la demee nag Anaconda waaw Anaconda bi xam nga rek bés bi moom li ñu ko ciy wax moom fu mu toll nii li des bëreetul quoi xale bu yaru la. xale bu gëm lu muy def la moom à bas âge la ñëw si écurie bi di contact bu muy toll comme booy ñu koy tegal paquet suukar muy bëre di daan ba tay yalla may ko li liñ koy wax ci combat bi nag mooy bëriwul yëpp nañ ko ba pare fulla fayda jom te lepp mo ngi ci mom gis nga li tok ni yëpp ay nawlem lañu te yabulen man sax duma ci wax sam bop mais xamna naa ne yabul ñi te ma ne jabuma sama rax la bo xamanté ku yaru la anaconda yarom foo ko àpp weesu na ko foo ko bu fit ak njambar mom du ko waxal waaw gayne pire la nak mën na ko ba fu mu yem xam lu ñuy ñaan fu mu toll nii yàlla suturaal ko lafal ko cat waaw sutu cat ak lam ak bët mais kële moom amul luñ koy wax dégg nañ li mu wax yëpp waaw ñi ko fekkee woon ñëpp a ngi dund kenn deewu fi ba muy ñëw écurie ba di bëre ana kondaa lañ ko doon ëffalal ana di ko daan man ah. du ma làqatu du non li may wax looloo am man du ma wax loolu dëgg barki sëriñ Bam moo xam na li ma koy wax bu baax sama raq la comme ni ana nekkee sama raq mais anaay sama raq pire man ki tax ma xam ko moom xam na caat moo la gën a xam ne moo ko anaconda boo leen tegoon fii fii ba suba mënul am jël kon li muy toog si télé bi naan am na ragal ngaak yooyu noonu yëpp parce que daay psychologique la ñun xam nañ ko bu baax li ma li ko arrêté daane man dee na du lu ñuy wax après naa la ko tegal bu lamb yi jeexee jaaraatal barki Sëriñ Bamba ah. combat bi bu bëree bu bëree du def une la wax lii nag bu defee une minute xamal ne moom daa daw a daw a daw ba tas mais bu taxawee barki Serigne Touba Mbacke booy bi daan ko jëlee bu set bu amul benn werante. waar dina ñëw de. waaye nag di gërëm ki nga xamante ne mooy suñu papa Birame Ndiaye bu baax a baax a baax ndax boo xoolee daanaka ñun ñii ba ñuy ñëw ci làmb dañ ko fi fekk muy gunge xale yi. mais bu ñëwtul nag boo xoolee fii boo xoolee champion yi nga xamante ne ñi ngi gunge xale bu baax a baax a baax waaye yéen a ngi seen sit internet jël bi dem na ngeen abonné ngeen laal seen cloche de ba tey pare guñ ñu ngi ci écurie Birame Ndiaye champion bu mag baa ngi nii bu mag baa ngi nii doomu nday Jackson a ngi nii Baye Mass doomu nday Jackson a ngi nii. waaw Hercule nuyu nañ la. fay nañ la. si loolu nag am jàmm. ñu ba alhamdulilah. jaayef tey gis nañ leen ngeen jàpp Anaconda teg ko lu metti parce que moom moo wane loolu quoi moom moom xam nga borom baax la Baye Fall mu yéene boppam la yéene ñëpp ba na ni ñun tamit ay ndaw la ñu ñëpp lañ yéene jàmm ñu gisee suñu rakk mu mel ni moom amoon ñu nekk ay ndawle bisom bu toll noonu dañ koy ñëw jàppale parce que lu nekk ci ñun sax newul ci mbër bu muy bëreel ñun xam nañ lu ñu war am ci man lu ñu war a am ci ñun bu jàppee mbër mi ah. lu gaaw la koy def te kee mooy loolu ah, kee ne benn for la am munul dara hmm. munul dara Anaconda ku dàq bëre moo ko dàq xeex kee wax jafe nekk Yoff ay wax wax wax wax dañuy wax rek dañ koy daan ba pare laaj Modou Dia. dañ koy daan ba pare laaj Modou Dia koy eh, yàggu la ngénte bàyyi la ko mu sax rek ngénte dañ koy daan ba pare laaj Modou Dia mu may ñu saas eh, foofu moo toll foofu la toll foofu la toll xale la boo xam ne dañ koy yeb waa parcelle dañ koy yeb moom sa yebuñu xam nga espoir la boo xamante waa parce yëpp yaakaar nañ ko rawatina waa 22 bii gars dañ koy yaakaar bàyyi léppam gis nga gars yi nuñ ku nekk waroon na mun a dafi lu mu war a dafi mais moom moo tax gars yi seen yite dëpp xam nekk si ginnaawam comme jour lamb day wone fulla ak fayda ak jom gu bëri comme gars yi ko yebee ci entraînement loolu la ñoo wone incha allah yàlla may ko ci ndamu seddu guy parce que jom jaa ci moom ay ca kontaane la ñu ñëw ci doom nday Anaconda nuyu nañ la. fay nañ la ziar la bu baax a baax a baax delloo ziar bu baax a baax yaay booy naka jàmm ji. Anaconda ak écurie Bira bi bu ñuy bëree da ngay ñëw sonn ñëw ci seen i entraînement sa diggante écurie bi la. non jàmm rek xam ni gaan fii nii ñëpp ay Baay Faal lañu te gaan ñun moom Serigne Touba xam na ne gaan taalibee rek nga ñuy jaay mu saf ñu. maanaam boo ñu jaayee leneen rek gaan mooy loolu ñii ñi fi nekk ñëpp ay taalibe lañu jaay ñu dund lu rafet loolu moo tax mu sama digganteeg écurie bi sama digganteeg mbeur ak lepp ndax talibé la ñu jaay baay baak seigne Touba Mbacke. lan ngay wax wax Ngéwél. ngey wax amul liñ koy wax liñ koy wax daal lenn la. moy lepp lu mu wax ci biir signature bi ñepp ñi ngi taxaw ñu naan Ahmed Ahmed anaconda anaconda anaconda li tax mu def li mu def demb ak yoy non yëpp amana ay maga ko dee moom instant bu amé lu muy bu waxé sax ngey wax bu waxé anaconda delloo ko wax di sax amana fofu la mëna jaa pour yëpp anaconda mais instant non dëggantaan lu leer laa lay wax te li ma lay wax nag fu wóor laa ko teg man la moom bu waxee jox anaconda anaconda tontu ko foofu lay jàpp yëpp anaconda mais góoroo góor rek laa la wax ana mën moo doole te leen la ñuy ñaan suñu borom mooy le 6 incha allah biir arène nationale bu ñu demee bu ñu demee bu ñu demee biir arène nationale du nee na Ameth dafa yëpp ay supporteram mais bu ñu simee ko Ahmed Daw jaagar jaagar moom mu daw jaar côté Ahmed Daw jaar gauche eh. barki Serigne Touba amateur dinañu xam kan ak kan moo entraîné ak ku fonk bis bi leen la ñuy ñaan le 6 incha allah yàlla suñu borom la ñaan rek mu ànd ak ñun xam na ni bu arbitre bi sifflé moo fi bàyyi. moo fi bàyyi caatu ngeewal billaay wallaay ah. loolu képp la amul leneen eh. ba pare nag romb cent pour cent parcelle bi di daw carrément ñaanal tamit sunu grand Papa Sow yàlla may ko ndam bu sedd guy maa la wax lii nii amul problème loolu yëpp du problème hmm. man xamala laay ñaan yàlla may ko ndam rek moom Papa Sow képp du leneen na tàkk tebal sa loxo. day am ndam sax 100% bi day am ndam. Siteu mooy Siteu nag contact ñi gis Papa na ñu gis daal. Siteu bàyyi tegle yi tegle tuuti yeeg yooyu noonu. ay zéro heure waaye zéro heure xoolal daa am lu ñu war a yebee Anaconda eh, eh, eh, ay di kaay maa zéro heure bi nuyu sama gars yëpp di leen jox seen wàccuwaay mm-hmm. di ñaanal suñu jëwriñ ji Anaconda mooy seen jëwriñ waaw yàlla na ko yàlla suturaal yàlla may ko ndam di adversaire am rek na ko man daan naa ko ñaari yoon soo ko daanee yow tamit mbapatu laa ko daan 2021 yéen day a minimiser nee ko na faj épaule bi ku ko dëbb naax day daw waaw na faj épaule bi ku ko dëbb mu daw daan naa ko ñaari yoon samedi laa ba rakam ban si. rakam bi Seck. Seck ah, ndaanam ah, samedi laa ko daan daan ko dimanche deux fois laa ko daan dimanche. kii kon yéen yëpp ngeen waa kii de. non koo yëpp te dañ koo xam. na faj épaule mu faj épaule bi waaw day métti nee ko na ko faj. E te incha allah am ko daan jël bu rëy. moom lu mu def daanu. Hmm. waaw lu mu def day daanu. ñëwal ñu def. ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal. mafia baa ngi nii mafia baa ngi nii. waaw. ana rek la ñuy topp. bu ñuy xale ba tey Sonadel mooy sama mag ñoo bokk ndey ak moo ma dugal si làmb Sonadel maa ko doon toogal ci mukaay mais xam nga lu tax ma Anaconda ñun ko dugal si làmb ñoo ànd moom bu ñu nekk xale nii mbocc ba màgg barki sayyiduna muhammad lu xam ci mom doomu adam mënu ko xam ci mom ciatu ngeewal neen du leen may dara ciatu ngeewal non rek la mëna mel doomu silver neena arbitre bu sifflé day dama la dama ne la doomu eh, silver ak albert bu nanul bière jaaxali mo xam ciatu ngeewal lolou muy wax non xolal loolu la am ci lamb ji doomu silver ak albert bu nanul bière ya may deg ciatu ngeewal ciatu ngeewal mom xam na mo bu baax ma mom dañuy degande kool ma mom wax nañu mu may jigini nan ma rakku sonatel nga sonatel la ci xol mané ko deureum lamb ji suñu bakkan lañ jaral dama kay wax mom la laay waxal lu taxaw si caméra yi di wax dama ko ne la mel doomu Zilwer ak Albert bu naanul bière day jaaxali mboqam wax rek la am si làmb ji booy bi mun bëre daa am fit muy wax di ñëw di Baye Fall la judd kii Baye Fall moo ko nàmpal Anaconda barki Seydina Muhammad taatu ngewal boko joxe xindu bax boko joxe boo ko sikar la ki Baye Darou dafa seen judd mom ñoo dégg ko ya ngay dégg sax jour la la koy wax dama kay saxu da nga naan man damay saxu Baye Fall mom mo bay neex na nga Baye Fall la dinañ xam kan mo Baye Darou da koy daan ana da koy daan mu ñaan ko fa saw nak ndam lu sedd jooma mu jowa ci kala mu dogale wo ko yoro ay wax lañu mën fi ba su sa way mo leen mën bay Mass du yomb de oh ana mo ni ni jox damay sukkur la dimbali ma ba émission bi la. waaw eh, mu taaj ñëpp aw. wàcc leen wàcc leen wàcc leen. heure bu ko neex. jaar ngeen mënul daaj mënul baax. Alkonda gis nga sa waa koñ fii laa ñëw fi mu ne nii ñu ngi lay jay te dégg nga lu la Caatu Ngéwél wax bu keroogee nee na mooy xeex mooy fecc mu neex. nee na bu fekkee rek yow dëggal sa bopp nga taxaw dégg nga la wax nee na nga dëggalal sa bopp nga taxaw dina la duma bu paree mun ñëw ba ci yow ne la moom mooy Baye Darou bi mm. ay ca wax ci loolu waaw loolu ma si wax mooy onze billah bismillah inna wani yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul di tambale si moom di yem si moom di bëgge waa parcelle yëpp di ziar di ziar ñu fi toog yëpp waa di bëgge waa Ahlou Lamb di bëgge suñu père Birame Ndiaye di bëgge waa équipe bi ñëpp waaw di bëgge waa bend fii nii bu baax a baax waaw mais Thiatou Nguéweul lu mu wax affaire tappen nga ay jàmbaar nga jàmbaar maanaam jàmbaar kenn du ko xam ci ci jëf lañ koy xamee waaw moo tax man dama dem ba may ñëw sax boo xoolee dañ ma yab ne ma maanaam yow demal nga cee na dal jàmm. da nga eh, ngi dégg. ñeme woo Baye Fall moo gën a métti làmb parce que Baye Fall ay sart la waroo si teggi dara te làmb la neex defal dem sa yoon kon man mënu ma nekk ragal waaw moom maanaam moom moo xàmmee ragal ak kii man xàmmee ma loolu waaw moom moo xàmmee ragal ak jàmbaar yooyu jàmbaar moom moom si la ko teg. Hmm. man ak moom ku gën a nekk jàmbaar yàlla na suñu borom may ndam incha allah. ku gën a nekk Baye Darou. yàlla na suñu borom non foofu day xaar parce que gi nga caatu ah, ngeewal moom daa wax na ko nee na dina la daan ba pare ñëw ne la champion. caatu ngeewal mun na la may borom caatu ngeewal ci wàll ci maanaam wàllum ay Baye Darou ak Baye Fall yooyu moom da ci war a toog. parce que bu bëree na fi ñaari combat ñoo doon tegu kenn Baye Fall man bu may bëree ba léegi loolu laay dund moom bu mu xaar ba moom man la sama waaye ma ñëw ne Baye Darou laa mu ñëw di xëccoog man Baye Darou Baye Darou moom doxewu ko waxewu ko man maa ngi ci maa ngi sikar maa ngi maa ngi baax maa ngi koy dund borom Darou noo leen laa yaakaar moom yàq der la bu mu ñu sax fatt <laughs> bu mu ñu muuroo bàyyi bu mu tax sa yenn jàgg yi afronté ñu ñemuñu parce moom loolu la dund bu mu ñu eh, muuroo eh. waaw. kon xaru tàpp na ñu laay laadum lañ. ki laadum la nee na ku xool sa kanam xool kanamam. xam ne moom moo la gën a benn moo la gën a nuru mbër nee na. <laughs> <laughs> moo la gën te démb na da ngaa ñëw ñeme woo ko kenn la nee na bul toog nan dañ laa ken kenn yebu la yaa ko ñemewul. waaw ci àdduna man ay ñeme ko ñemewu ma ko loolu lépp biti la naa ko wala ñeme a a boo gis tam du yow waaw ma ngi déglu bañ na yow la. combat bi wax yëpp day ñoo di bi combat bi ci lan lay jeexee xeex wala bëri. ci àdduna déggoo ma xulóowu ma ak moom xeexu ma ak moom eh. daan ko waaw man su ma waree xeex si làmb naa xeex incha allah mais Thiatou Nguéweul xeexuma ak moom xuloo moom man damay déranger mbëri parce que mënuñu bëre ñu si bëri mënuñu bëre dama bu ko jàppante. Eh, ana bëri rek ah bu ko jàppante. <laughs> Eh, ana ni nga taxawoo ñëpp ñëw di la jàppale ci entraînement bi lan ngay wax waaye écurie bi. écurie seen fay mun naa ne ñoom ñëpp ñoom jàngal bëre ku nekk dafa ma naan jëlal lii kii ku nekk damay jël si yow benn affaire. waaw neex fii ñu écurie Birame Ndiaye maa fi gën nekk cuune ay champion rek a fi nekk maa ngi ginnaaw ñoom ñëpp ñu yëg ko ñu yàq ko yëg maa ginnaaw ñoom li may bëree li ngay gis may bëree si ñoom laa koy jëlee damay jël si kii jël si kii jël si kee ñoom aw ma seen fay war na sëriñ Tuubaa nekk seen tuddaak ñu jiital ma si lépp waaw tete ma fu ma jaar la fa laa jaar fu ma ne mu fa jaar mu fa jaar waaw maa ngi ñoom ba géej gi fer sa kàddu bu mujj lan la sama kàddu bu mujj mooy wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul di santaat mafia bi toog ñëpp di la sant yow di bëggee maanaam ñuy jàpp si combat yi ku si mel ni Bass Thioung Matar Diop suba teel di woo ñoom Mor Guy gi borom 500 machines yi xam nga ñoom Bilal bu sama bere sama lakkal foofu sa baram 500 machine nga nar yob yóbbu inshallah eh togal yow ma jug taxaw nga naa ma toog sama ko wa yalla def kenn musu ko jël bi non ko jël bi dama koy jël bi ñew jël si non dama koy jël si waaw di len bega wër di wo ñom Bilal ak ñom ñass Ahmadou Gaab Amadou Yogo ñëpp ulim Dioum di wo Kéba Kanté di wo wa Liberté kat garaaf nag gaan wala commencé seen combat la waa cité millionnaire ma andi wo ci lamu ju baaxa baaxa a baax waaw ñoom Baye yàlla ñoom ñëpp di woo ma ne sama waay mafia bu mag a mag bi mu jee judd gën a siiw bi zéro woo xam nga di wax man ñoom ñoo sama doole Baye ak Rafa joo baay Fall yi gaan maa ngi mbëru Baye Fall yi Baye Daaru li déranger mbër yi wala mbëru Baye Fall yi mbëru ah, koy def mooy yow jàppale daan la. Mabal Mokal Mabal Mokal dem ma su ne dégg naa ko waaye Mabal Mokal moom maa ngi koy doog a dégg Thiatou Nguéweul am nga problème sa di sant ñëpp di gërëm ñëpp nee naa di gërëm tam ki nga xamante ne mooy Agogo sama xarit la lamb yëpp xam nañ ko boo waxee sa dañ naan mooy mbër matu sama xarit la sama waay la waaw émission bi nag caatu ngéwal bul ma mere de làmb moo demee noonu te ñii yàlla <laughs> yaa ma garaxam di gërëm Baye Mass sama caméraman bu baax a baax a baax di gërëm waa Jëli bi di kontaan nag ci abonné bu baax baax di leen wax nag sama drapeau bi le 12 novembre maa ngi ci woo ba allah waaw. ana bëre eh. waa garaaw yow fii woon na leen. waa garaaw yëpp maa ngi woo baax di wax sunu maam Seera Faal Faal Njaga yaanu moom. sunuy dund ak sunuy dee Baay Faal la nuy doon maam seera faal faal njaga yaanu moom bu nuy dund ak nu nuy dee Baay Faal la nuy doon sunu maam seera faal faal njaga yaanu moom sunuy dund ak sunuy dee Baay Faal la nuy doon sunu maam seera faal faal njaga yaanu moom bu ñuy ak bu ñuy dee Baay Faal la ñuy doon. di jooy naan ñàkk naa bay naan sànku naa sunuy dund ak bu ñuy dee Baay Faal la ñuy doon. sunu maam Seera Faal Faal Njaga yaa nu moom bu ñuy dund ak bu ñuy dee. Baay Faal lañuy doon lay laa illallah moom la góor yàlla yi rawe sunuy dund ak sunuy dee Baay Faal lañuy doon seera Faal Faal njaga yaanu moom sunuy dund ak sunuy dee Baay Faal lañuy doon maam borom sala borom toujours borom encore borom ma ñu ndam borom ci barke borom